mais sama tur Mina benn faatu faatu bu bëgg ñibbi sa réewam. di ay bagages Espagne di ko di ko pour am gars bu Sénégal yëpp am parfum yu neex dañuy am ay parfum saphir. Mm-hmm. ñëpp xam nañu ne Espagne lay jógee ay caravane ay ambientador. dama bëgg bagage Espagne dama bëgg nga won ma bagage benn par benn. won ma bagage benn par benn. lii bii mooy ban. bi parfum chambre un litre. un litre Flora plus la. Flora plus Espagne lay jógee. gars yi nag ko nii parce que bii Espagne lay jógee. waaw Espagne lay jógee xool nañu ko bu ci réew mi. lépp suñu këyit la ñuy mooy ban. Eiffel. Eiffel. Eiffel a ngi nii depuis Espagne. chambre. oui am nañ lan la. diffuseur. diffuseur mooy def say bant. mais lii garaaw de. dugal say bant. muy muy muy muy jolli ji nekk. muy julli. amul taal amul dara. amul dara mais affaire dafa a noppale léegi. dafa gën a noppale kenn sonatul. 61 21 bi car caravane bi lan la. li caravane la. est original bi original bi original rek a fi am. yéen a ngi jar. original rek prix yomb dañuy jaay en gros jaay détail. d'accord dañuy jaay pour revendeur yi ku mës a jaayaat ñëw ñëw fekk suñu gël tàppe ñu am na numéro 28 am na 21 am na 61 am na 81 13 20 am na numéro yëpp am na numéro yëpp kii ci kay 1 ba 100 la. lépp la am. léegi deux deux deux yële ci kaw lan la. li parfum Dubaï la bu ma paree Espagne dama dem Dubaï dem uta leen parfum yi gën a neex. Dubaï mais yaay tuggil sa bopp. maa tuggil sama bopp amul benn intermédiaire sama produit amul benn intermédiaire dinaa ko jëndee sama bopp. Eh, kon yow moom sa produit mën nañ ci teg baaraam ne. lii yaa koy jëlee indi ko directement amul escale. bu neexul doom bu dee léegi euh, euh, manioc yi lan la diw yooyu. lii eh, xam xam ne Espagne la jógee jëlal ma jëlal yooyu. lii ku xam am na Espagne lay jógee gel manioc original fii nga koy amee si Mina nga koy amee amul feneen. mais Mignon fashion fa fan fan la nekk. ñu ngi gël tàbbee côté hôpital Abass Ndao boo dem lycée de la Bosse. sa lan la. Euh, ah sama numéro. ñaar yoon laa nga jox ma ko parce que dama bëgg ku mu rëcc ko amaat. sama numéro Espagne laay mën a joxe mooy 0034 631 715 733. waxaatam. 0034 631 715 733. cuuraay. waaw. sarxataan yi. li la la. cuuraay sarxataan. sarxataan. waaw kon tamit comme ak cuuraay yi nga xamante ne da ngay ñëw rek ànd sukkinaa yaa ngi nii ngay taal teg muy xeeñ nag dox na ci bureau. lépp mu ngi nii saal lépp lépp. dàll yan façon dàll la. yaa ngi nii. carax la yi talo saara carax yaa ngi nii. mais saara dafa am ay ay façon yi. Ah, carax yi. carax de classe yaa ngi fii. boot yi lan la. lii ay parfum de chambre la. ay frotté États-Unis. sac de classe sac de classe. tout y a tout accessoire tout. lii ku ci bëgg nu muy def. contacté Ngoné Shop Marignan Ouest Foire. numéro téléphone bi ñaata la. 77 316 20 34. dolliwaat na. 316 20. 34. maa ngi lay nuyu bu baax di sant. maa ngi leen di fay ñëpp di leen nuyu di sant suñu sëriñ. di ñaanal suñu sëriñ bi fi jógee yàlla na ko yàlla yokk leeram. di ñaanal ñëpp di ñaanal taal bi Sénégal yàlla na fi jàmm am. suñu xalifa. ñaanal ñëpp. lan mooy sa secret ci liggéey bi. waaw Kira collection moo ngi nii couturière def naa formation bi 3 ans ma nekk di commercialiser voile suuf hijab bonnet jàllaabe li yëpp maa koy ñëwal sama bopp. jàllaabe bi lii lii ku ko ñëw. lii grand boubou la man maa ko te neex naa jullee neex naa gàmmu neex naa jullee neex na fenn ba pare tissu bu léger la mën nga ko produit fan lay jógee. fii la ñuy jëndee tissu bi tissu bi man Colobane laay jëndee ak Pikine mais gars yi dañ koy importer mu ñëw si conteneur waaw foofu lay jugee foofu lay ñu indi ko fii Sénégal ñun couturier yi dugg rek yaa xam ne lokati ñëw def sa création. si gàttal lii yaa koy ñëw sa bopp. maa koy ñëw sama bopp. Kira collection. yaa ngi nii. lii lan la li li ku ñëw li man Kira collection. li mel lu jugee. comme pré comme pré. mais de. nekk couturier rek. ñaw commercialiser lépp gis nga Kira collection. lan ak lan ak lan ak lan nga ñu proposé tey. lan nga ñu indil tey est-ce que góor ñi am nañ ci wàll tamit. waaw am nañ ci wàll. ana li góor ñi moom. jàllaabe yaa ngi nii. lii xanaa Maroc la jógee. waaw am nañ jàllaabe am nañ kaalapé. wala Arab Saoudi la jógee. Maroc Arabie Saoudite fépp fépp koo xamante ni góor ñi am nañ ko wàll mi ngi nii jàllaabe. vers Sénégal vers bàyyi nii. mais lii yéeme naa. rouge bordeaux. tey ci foire bi lii nga ñu indil. lii laa lay ne ay fulaar nag lee lan la. lee ne ay susu la. ay yi ñuy takk pour bañ euh, nga am benn jafe-jafe ci sa wàllu bopp. d'accord mais mais yëkkatil ma ñaar ñett ma xool. lépp daal ci Kira collection. seen boutique fan la. Euh, Yaraax ak Liberté 6. Hann bel ah, boo ñëwee ba parc Hann foo laaj euh, Kira collection la ñu wan la ko. dama nga wax numéro ku leen sa nan lay yow. Kira Collection numéro bi mi ngi 77 122 21 91. dégguma dara de parce que bu bu bu gaawee mbokk internet yi duñu xam numéro bi damaa bëgg lii ngay def fii lii dama ko daan gis feneen su ma ñëwee ba gis ko fii lii sagu senegal la ma bëgg nga jox ma numéro bi ndànk par ndànk te nga jox ma ko ñaari yoon. Kira Collection. mi ngi ba Yaraax en face Parc Hann numéro téléphone 77 122 21 91. waxaatal. 77 122 21 91. liggéey doo am jot fuloo doo am jot xeex. kon nag loo leen di wax autorité yi pour ñu jàppale leen yéen. nañ ñu dimbali di ñu gëstu xam ne ndaw tey jii am na ñu bëgg liggéey nañ leen jàppale waaye nag réew mi comme li ñuy wax kumba am ndey kumba amul ndey boo amulee baraanoo doo yegg fenn. wol ministre bi mi ngi lay déglu. yéen ñoom ñëpp la woo ministre yi dañoo war a gëstu ñu ndaw yi. ñun ñoo créé ak ministre commerce. ñun teguñu loxo la femme ñun ñooy demal suñu bopp ñëw leen ngeen geesu ndaw yi ngeen jàppale ñu parce que tooguñu tëdduñu di nelaw ñoo ngi kurti kurti dama ko ñëw mais foire bi am am na sécurité waaw ah, kon loolu kon loolu kon loolu moom il faut nga gërëm ci ministre ñoo ngi koy bu baax a baax ñoo ngi koy gërëm bu baax parce que foire bi am na sécurité ndax heure wàcc bu jotee da ngay wàcc mu sa bagage dem boo nga koy fekkee dara du manqué am na xolam kon du ma seetaan kenn du ko néewal sama waaj tayoo kenn du la néewal ndax ñëpp la bëgg tubaarikàlla kii sama waay la nee naa ko tubaarikàlla kom ni ko man Ba si nu waxee léegi Thiès sa mu nekk sori na waaye kalla heure bu ñëwee Dakar ci man lay ne rek dafa neex aka am otoom bu rafet bi mun koo dawal a aka mën a fay li nga xam te ne moo di yi waaye maa ko doy fa tubaarikàlla fu mu ñëwee nekk ci man fonk ma bëgg ma tubaarikàlla maam Ndiaye Savon xam nga ne xeeseegul mais ci saa si la woote def Wave dugal 300000 macha allah tubaarikàlla kon tey baas bi jar na njëgam. lu ma naqari woon tey baatu 900000 li ma naqari woon keroog ci li nga xamante ni moo di allé di centenaire rek tey fowaat bi faj nañ fo faj nañ faj nañ tey baas bi am naa ci 900000 sant yàlla 900000 tey baas ak ak 300000 yi maam Ndiaye yónnee muy ñaata 1 laa mujjee jaayee tey la cat 1 million 200 tey baas yaa fee dexale yow la réew mi bëgg te aju maas nañ koo wax te buñ ko waxee nañ koo wax yow la réew mi bëgg xale yi mag ñi jànk ci njagamaar yow lañ bëgg waay. waay waaw. moom laa wóolu man ko bara ñëwal nii ndax vigiles yi ma topp kaay nii. waaw. Eh, arrêté jeex na jeex na jeex na yow nga yàq.